sant ko nag sëriñ bi may na la sak ndax la gaañ a bëggoon ne sëriñ bi yow la ko jox yow la romb ca tool toolu baay kulli cuun yaag sa mag booba la lay dimbale sëñ Béthio keroog ba nga dawee ni topp watiir ba di daw cangarawe ku ne sa daw ya mooy sunu raw mani kaasu ataaya ba keroog sëriñ saaliw bam ko jëlee di ko jox mag ñey ak ka wax sëñ la ko lu ci way ay waay dara dara dara dara xoolul dara soxlawul dara ak taalibe rek ko ñor keroog bi Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke wàccee liggéey ca barab ba ba ñuy waajal Serigne Sidi Muxtaar la sukk ci suuf te ku ne xam na ni at ak magal gi mayu ko ko waaye dafa ne sëñ moo ma ne woon bul fanaan ci kaw lal sëriñ sëriñ Sidi mu ñuy waajal Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke di ko jébbal sëñ Tuubaa ci barab bi la sukk ay óom yi ci suuf daal ne sëñ Muntaxa sëñ Abdulaat moo ma ne woon bul fanaan ci kaw lal te amoo sëriñ jox boppam sëñ Muntaxa njëkk a jébul di jëwriñu ñëpp ñëpp topp ci ginnaaw sëñ Abdulaat tey sëñ Saaliw sëriñ Saaliw wooy sëriñ ne son yëpp ndax soxna Mareema ak soxna Faat Jaxate ñoo bokk ndey ak waaye nag juddu bopp bi mu amee ci yow samaam julli ci biir Ndar bii nga mën a toog croiser les bras lekk addiya defoo ko da takk sa liggéey madame Mbàkke lañ lay wax dama ne dama ne dongo yi ñoo naan soxna Faati waaye yow boo xasee ba dugg Dakar madame Mbacke ngay dégg directrice su entreprise bi xaaroo àddiya de huit heures ngay yeewu liggéey te ndakaaru kenn yabu la dama ne ndakaaru kenn yabu la ñun bokk nañ ci ñi mujjee tëdd Dakar waaye kenn yabu la te képp koo sékkal jëflante nga ak ma teranga bërki déema da nga maa woo ba ma ñëw nga ne ma maamun ne la Mbacke nga ni ma ana fifty ma ne la Fifty ne yaaram ak gisaguma ko nga ne man loo mën a fexe na nga ko gis te xam fu mu ne te it bu ko ne maa ngi ñëw ma woo Fifty ne ko foo ne mu ne maa ngi fi ban heure ngay wàcc mu ne maa ngi fi ba deux heures du matin bi ma ne ko waxee nga ne ma kon noonu dem léegi ñu ñëw nga keti million jox ma ne ma joxal ma Fifty boo ca yemoon mu doy nit mën naa lu mu gëmul bët mën naa xool fu ko neexul nopp mën naa dégg lu ko neexul waaye tànk fu mu dem borom la neex. sonn ci ñoom ba noppi bëgg mbokk koo bokkeel sëñ tubaa respecté nga ko jox nga ko cër bi nga ñëwee léegi day wàcc oto bi mag Seydou ñu dar la nga ne ma déedéet sama baay a ngi ne joxoñ sëñ xafoor ngay dugg ci hôtel bi nga ne nga nga ne ko yaaram dugg sil ba noppi mooy bewoo yëgoo sa bopp koo bokkal sëñ tubaa respecté nga ko benn at ku la ko mëggee sëñ tubaa foo dajeek moom di nga ko ko wan noonu nga def sa baay yii def ko sa mag yii kàddu gii may wax nag ñi fi teew kenn ku ne mën na ko wax allah ji ka meeg ñëpp mën nañ ko wax waaye fifty sag mbaax ak sa taalibi ak sa pëstéef moo da soxna si def nii mu def nee na weeru koor saabu jotee ay ndogu ndogu yi fifty nee na saa bu xasee ba agsi fanweeri fan koor gi yëpp mën nañ cee ndox nee na dañ na ko ba da ngay dem sax ba fu ñuy jaayee vaisselle nga xool ndab yu rafet yu baax ndab yoo xam ne buñ ko tegoon fii day day day ëpp taabal bi ñeenti xar mën nañ ko cee teg nga jëndee ko lu seer daal ne soxna Fatou si yenn saa yi nga yónnee fruits yenn saa yi nga yónnee poisson yeeg lu ne te loolu lépp nag boo xooloon li mu am doo ko def boo xooloon li mu am doo ko def waaye da xam ne nag li mu am. dafa am lu ko jiitu muy sëñ Touba sëñ Touba googu nag moom nga xool ci moom yëg ko ci moom ba nga jëf nii nga jëfee mu ñëw ànd ak baayam bii di xaritam bi léppam muy Cheikh Abdou Khafour mu Cheikh mu seex ma Cheikh